tabarkalla al yàgg la àndal mii toog ak alla jëmat lamin jéen yàlla leeram yokk ak sunu mbokk mii di Ibrahima ñaŋ amee chemin de ca cees tabarkalla téeg waxoon leen ko yàlla xam loon xol yitte la la ak bopp mustabiyan bu garee is waaw ah ma yërëm lool del jëfandikoo nangam nangam nangam nangam ma bàyyi koog yëw bu xale yi màggee nga jox leen ko loolu nag sëriñ Babacar si mi nu jur sax paase ko waaw ak it délégation yi fi ñëw yépp nag te dégg mouvement bi tax fa tabarakallahu nekk te ci waxtaan wi maanaa de jóge ca mbooloo ma tabarakallah ah sunu mbokki dayiratul ak fédération dayira yi làqu ci seen gannaaw ñoom ñëpp seeni délégation ñëw na tabarakallahu délégation koskas ñëw na fa tabax délégation mustarchidine ak mustarchidaat mu mel ni kon kala mbokk yi yàlla dogal ci ñoom yitte ñëw nañu waaw ah sama secrétaire bopp bi itam fa tabaarakallaahu wa di Lamine Diack ñëw na mu mel ni kon bu nu jàngoon fatiha it mu baax waaw waaw te dañu nekk ci réew mu nga xam ni ku ko réer def musiba rek def musiba pour lu nu nar a mi ngi ci réew mi lu nu ak xam-xam mi ngi ci bés jëfi docteur yi ngay liggéey mu wax ma ñeenti boppi saar di ma dee ko jàng di ko ci tëfli billaahi wal ma ni ko foo ko xam mu ni ma sama càmmiñ dafa feebaroon ci bët mu dem Tiwaawan wax ko Sëriñ Babacar Si bu tedd waaw ba tax na daje jàmm du fi doy daje liggéey du fi doy ndax am na ndono boo xam ni ku ko am sàggane ko ndax ñàkk jàmm yàq nga yàq nga yàq nga ba moo tax fa tabarakallahu daje tey bi bëgg nañ ci doonte nu ngi balu àq yitam yiw wi ci nekk mën nañu amee giiru dund yiw wi ci nekk mën na dem ba ci sëtaat yi ci kàttanu yàlla président Abdou nag mooy président Abdou Diouf yéen ñëpp tàccu leen ko Aziz ak Cheikh Xat Mbakke bokkal ne dikk bi daa te nekk ma doon la ñu paase kuddu mooy président Abdou Diouf te moo sabab daje tey bi moo sabab waxtaan wi kenn moomu ko moo ko moom mu mel ni itam kilifa bu moomee dajeem danga ka ca waxal yi dëppoo ak xaqaayiq yi mu mel na ci wàllu cant ñu sant sunu borom mi nu may kattan nu def lu mel nii nu gërëm itam képp ku nu jàppale ci mbooloo mi surtout sunu doomi bopp yi ak sunu rakki bopp yi nekk ci kanamu jigéen ñi ku ci mel na xaaj ndey xoll bii ak ku ci mel na xaaj mam basin ñang kii maa ko yar muy rakk kii maa ko jur muy doom waaw ci lu wér journal bi ngeen gis yépp xaj mam moo ko defar ndaxit it góor ak jigéen amul ku yàlla barkeel rekk moo am mag ndaw amul ku yàlla barkeel rekk moo am waaw kon nag yal na nu yàlla defal barke waxtaan wi nag mën na bañ am tur sax wante wutal nañ ko tur

te dafa mel na di jàngaat baat yi baax na tudd baat rekk sànni baaxul ndax liberté moo tolloo ci arab alxurriya dee ci wàllu aada mu xat bu ci wàllu xaqiqa mu yaatu alxurriya ci wàllu aada amul benn maana mooy ki la ni man dey sama ndey du jaam sama baay du jaam man duma jaam kooku ci erreur la nekk kooku ci erreur la nekk amul kenn ku ndeyam di jaam amul kenn ku baayam di jaam amul kenn ku nekk jaam moo tax bu dee wàllu aada jaru ko ndax Cheikh Al Hadj daan na wax ni sharia tudd na jaam waaye d'accorduma ci ndax nekkul ku ñu tooñee fi nekk mag nag du tooñ ba noppi di ko tiitaroo waaw nee na buñ ne ku fanaan ci dëkk bi ñu jàpp la ngay jaam ne mu kàllaf yépp daw ne gor ga toog ci pinc ma ni man mënuma daw ne buñ ko jàppee ne mooy goru dëkk ba waaw nee mooy goru dëkk ba moo tax jàmm amul ku ñu tooña am moo tax boo tuddee alxurriya liberté te ci cadre aada rekk nga ko tudd yàqu na bu dee ci cadre xaqiqa nag ñu seetaat ko ñu seetaat ko ndax yàlla xaqiqa la féeteel aada moom la ndey ak féeteel kon bi yàlla féeteel moo ëpp doole waaw dëgg la sax xam-xam yaa ngi fi mag ñaa ngi fi yiñ ci wax bare na am na fu ñu waxe ni doomaadama dañu ko tànnloo wante kenn pang-pangalu ko pang-pangal rek ni ko kaay jëm fii mukk ëpp na ko danga koy tànnloo kenn mënul tànn nag te xamuloo kenn mënul tànn nag te yaruwoo kenn mënul tànn nag te nekkuloo nit bu ko defee liberté nag daldi jaaxle jaaxalit ña ko amee ndax dafa yëg ni ndeke dañu ko tënk boyaluñu ko liberté dañu ko tënk boyaluñu ko waaw libre naa ci def nañu la xool yow mi liibar yaay kan waaw ndax kat Cheikh El Hadj Malick radiallahu daan na wax ni chaise wurus Hadj Mansour barakallahu daan na wax ni chaise wurus nee na bu ñu la ko joxee te ni la boo ci toggee ñu dagg sa ndigg nee na lu mat a bàyyi xel ma liberté noonu la mel chaise wurus la boo xam ni dañu la koy jox te ni la boo ci toogee ñu dagg sa ndigg lu mat a bàyyi xel te it xaw na mel na réew mi ku xeeb li fi nekk ci xam-xam doo nit mag jàngale na fi sëriñ jàngale na fi tubaab jàngale na fi xamuloo ni bi tubaab yi laata jàngale mag ñee jàngale xamuloo ni bi lislaam ak beneen diine di laata jàngale mag ñee jàngale moo tax xam-xam yi fi ne bu ko xam-xamu mag ñi bootul du dem du dem mukk mënul dem lu mat a bàyyi xel la daanu ci dellusi Cheikh El Hadj daf daan wax ni li ci téere yi ne li ci dënn yee ko ëpp li ci téere yi li ci dënn yee ko ëpp nee na bi dënn yi feese lu jur li ci téere yi waaw moo tax daan na wax ni ku yaruwul gisul foo ko teg ku yaruwul ne ni gisul foo ko teg ndax nee na li génn tuuti la ci li génnul waaw ne li génn ba noppi tuuti la ci lañu ca dajale tuuti la ci lañu dajalewul nee na lañu dajale itam lañu ca joxe ñu móol ko tuuti la ci lañu móolul nee na lañu móol itam boo seetee lañu ca jàng tuuti la ci lañu ca jàngul nee lañu ca jàng yitam boo seetee lañu ca xamul moo ëpp lañu ca xam waaw nee na lañ ca xam ak as néew lañ ca jëfandikoo tuuti la waaw nee lañ ca jëfandikoo itam lañ ca sellal tuuti la nee tuuti tuuti yooyu nag bu dajee war nga nekk nit xam ni sa dund yépp njàng lay doon waaw war nga nekk nit xam ni sa dund yépp njàng lay doon mu mel naa dellu na ci li Cheikh Al Hadj daan wax ni bu ñu nee lu baax lii xajul ci àdduna aljanna rekk la xaj mu ni waaw comme kenn xamagul fu àjjana ne te kenn demagu ca teenoo defarandi àdduna xamuloo ni nit ki dee ñu sang ko ñu sangu ko sangu ko suul ko def ci bàmmee rekk nga ci xam waaye boo ko ca defee ba noppi xamuloo ci lu mu nekk moo tax bu ko xaar loolu bàyyi ko mu def yiw di dund ca yiw ga su dee sa pexe jeex na ci yow wante bu deful dara di xaar aljanna adduna bu tukki la ah ndax àjjana lu mu rëy rëy adduna daggit la ci moom boo ko daggee sànni fan ngay teg sa tànk pour dem na mënul nekk ndax sa bopp baaxul waaw warul nekk waa tax Cheikh El Hadj Malick daan wax ni ak ni mu xëree ci yonent bi ak ni mu xëree ci cheikh daan na wax ni yal na ma yàlla musal ci àjjanay gàcce yal na ma yàlla musal ci àjjanay gàcce ñu ne ko luy àjjanay gàcc mu ne àjjana joo xam ni dañ may déey ni ma diwa tax ñu yóbbul àjjana yal na ma ci yàlla musal xamuloo ni gàcce la nga dem àjjana ñu naan la diwa la fi indi la waaw war nga góor góorlu sa góor lu bopp ba mu wóor li góor piir nga waaw bu la yàlla yóbbu àjjana mu yóbbu la ngir sa ngóora waaye naan la yonent sàngama tax walla sëriñ sàngam yàq la waaw yàq la yonent yi baax nañu nag kenn du leen weddi waaye ku sañoon yàgg yàlla rekk ndax ba mu lay bind yàgg moom rekk waaw waaw ba moo tax bala ngaa defar sa bopp bay mën a tànn dafa mel na war nga yëg defar ga coono ba mu laaj war nga ko yëg de Sëriñ Babacar Sy daan wax ni doom am na lu ñoo tudde wilaaya diw wëliyu la mu ni ma am na lu ma ko gënal mooy diw boroom xel mu rafet la di wëliyu la nee na diw boroom xel mu rafet la moo mu ko gënal ndax ne wëliyu wu dof fu mu jëm ak fu mu jëmin waaw te wëliyu dana dof waliyu dana dof waxuñu ndofu yiy sagar waaye dana dof du xama lijjanti dara dara dana ko dal moo tax mu daan wax ni xel mu rafet moo ma gënal wilaaye loolu ñëpp d'accord nañ ceeg moom mu ni euh, gis na ci euh, nettali gis na ci nettali ndax it xam-xam dafa am ñaari boor li nga jàng ci école bi ak li nga jàng ci ëtt bi du benn jàng li ci école bi yépp wàcc li ci ëtt bi yépp dof ñépp waaw mu takk jàng li ci école yépp gàddu diplôme yépp réer ci ëtt bi yépp gën a dof ñépp nee na yàlla dafa woo Jibril nee na boobu Jibril yëg na ni mën na tiitaru ndax rekk farata bu ne moom la ca yàlla yónni yëg bu mu ko yëg sunu boroom bëgg ko yebbi ba mu xam ni li mu xam li mu réere ko ëpp mu ni ko box box yële nga xam ma denc ci xaqaayiq yi xaqiiqa bu nekk ak boxam demal ci box bi ñu bind xam-xam nga wol ma ko dal di ñëw rekk ubbi box ba fekk xaqiqa xam-xam taxaw mu ne ko kaay wuyu sa boroom mu ne ko nee ko lànk naa mu dem ci yàlla ni ko xaqi euh, xam-xam ne lànk na mu ne ko demal ca box ba dend ak moom ma denc ca xaqiqa bi ñu tuddee ragal yàlla nga wal ma ko bu dem ca box ba fekk xaqiqa ba taxaw mu ne ko kaa wuyu sa boroom mu ne ko lànk na mu ñëw wax boroomam ni ko ragal yàlla lànk na mu ne ko demal ca box ñetteel ba xaqiqa ba ñuy wax xel falaa ko denc wool ma ko bu dem ci bu ñetteel ba ni ko kaay wuyu sa borom xel dal di génn ragal yàlla génn xam-xam génn topp ca mun leen fu ngeen jëm ñu ni ko waaye yemal fi nga war a yem yàlla waxoon ni bu kii génnee rek nu génn topp ci waaw waaw ko yemal nag fi nga war a yem mu soog a xam ni ndeke moom as ndongo rek la waaw mu soog a xam ni as ndongo rekk la euh, loolu ku mu bàyyi loowul sa xel ci sa bopp doo nit ndax man diw laa bëgg te ko dajal saaga ko koo saaga diw mooma nga saaga diw mi nga bëgg moom nga saaga yëguloo ko nag ndax doo nit wante xel lu mu jiitu rekk mën na rafet teet xel màggam kenn xamul fu muy teere ji ñàkk a toppatoo rek a fi nekk mi xel mu ñu toppatoo kenn xamul fu muy teere ji li ko yàlla jox ci leer lim ko jox ci kattan xel mu ñu toppatoo taxawu ko taxawu ko ci liir ba mu nàmp taxawu ko ba mu fer taxawu ko ba mu dëgëree mu taxawu boppam ca ba mu ko manee te dañul di taxawu boppam kenn kenn xamul fu muy àkk ci waaw wante xel mu kenn taxawul kenn toppatawu ko mara deytaan waaw ndax it inistataatum ja inistataatum an tanfudu min aqtaari samawati wal ard fanfudu terewu ko dafa wax rekk ni la tanfuduna illa bi sultaan waaw yàlla nee na espace bi yëpp may naa leen ko ndax seen xel mën na ko moom wante ci charte ngeen bañ ma ci génne xamuloo ni loo génne yàlla mu yàqu ko moom nag du war bu ca sa xel àggee te gëmuloo ko dana bàyyi sa xel jëfandiku waaye loo def mu yàq moom itam waaw euh, boroom xam-xam yi jël nit yebal ko ca weer wa ke ca ëppoon solo ëpp ca doole ëpp ca xalaat feebar bi ko rey xamul woon ban garab a koy faj te feebar na ñu tëral ko mu di borom kattan tol ni mbëru làmb feebar ba di ko nàmp ba mu tol ni liir kenn xamul lu koy faj te ci ñi yebal nit ca weer wa ca la bokk pour wax la ni terewul xel dem fu nekk wante it nañ ko boole ci yëf yi waaw ba moo tax di nattale di natt di nattale di natt di nattale di natt ndax nee ñu ku sóoru li yàlla natt ba noppi ku sóoru li yàlla natt ba noppi daa xam ni yaa ngi bëreeg borom doole waaw te naw sa bopp nag naw sa bopp nag jaru ko naw sa bopp nag jaru ko euh, euh, sama najaay jën nee na ma dama tollu ci sama diggu kattan di bëre làmb ñépp ragal ma ne mu nekk tiitar ci man nag eh, nee na ma defe ni ci kaw asamaan laa jóge waaw nee ne jigéen ñaa ngi may yàq eh, di ma defaral eh, laax yi léeg di ma jox siru dënk yi ne ba làmb ja jotee nee na ñu nga ma jiital ma mel na buur day ñëw ci làmb ji rek xale bu tuuti rek dëkk ma nee na sama xol bi tàng jër ne ma ni te ngeen ma bàyyi ma rey ko nee na ñu ma ëpp naa def bul topp sa jikko nee na ma jaar fale xale bi dogale ma ma ni ko waaw yow mën loo dem ci suq yi waaw man la dem ci suq yi man mi nga xam ni mbër yépp bàyyi na ma nee na continuer ma dem ba ca koñ bale mu dogale ma ni ma yow rekk laa bëgg ci bëri nee ma xool ko boo ko pesee du mat juróom fukki kilo te booba maa ngi ci sama téeméeri kilo nee na sër bu mu ngemboo sax amu ko ne dañ ko abal sëru limiyaasile waaw mu def ko rekk rof roppi waaw nee na ma wax ak ñi ma àndal nag ni leen may leen ma rekk ma yar ko benn yoon te dellusi si eh, nee ñu ni ma ay ca nee ma ñëw rekk ni ko ñëwal mu ni ma doo doo ma ni ko mukk jaru ko nee na nu léewtoo léewtoo léewtoo nee man booba ndeke passé naa bu yàgg yeneen xew na ca Ndakaaru duma ko yëgul wallaay nee ñu léewtoo ma xët ko xët bu dëktu ba njanaaw yépp naaw nee mu ree nee ma ni kii dafa dof eh, nee na ree ji nag merloo mag sama dooleeg nee na mu wuti ko ne mu tëru ma nga sew ba mu ëpp nee na ma defe ni daf may yenu mu tëj ma nee na sama diggante jumbux bile ak sama naq bile nee na lay yëg mu kucceel ko nee na ma ne ah, bu ñaari at dootu na ma ñaan piir eh, ci sama diggante ak sama borom mu téyel ma lekk loxoom mu bañ a ñaar nee na ñaanu làmb yàlla du ko dégg nee na beneen kucceel tegu ca neena may wax beneen ñëw ne bu mujj rek ma yëg ni ñépp ngi ree fi mu nekk wallaay ndeysaan ne ma sonn lool ndax booba daf fekk euh, rekk ñu yafal ma te it ndekki li ñuy wax entraînement euh, xew na te yëguma ko wallaay ndeysaan nee na nag ma yëg ni sama gémmiñ sorewul noppam ma ni ko yaa ngi def musibet wante nee na ba ma xoolee yëg nit ñi ñu ngi ree ba seen xol sedd ne ma ne xam naa ñama àndaloon ñoom ñu nga ca fa ñu toog di jooy nee na ma xool leen seen leen ñuy reere joo xam ne ma ni nit daal mooy xaj waaye nee na keroog la gëj a xeeb jaamu yàlla walaay ndeysaan ah jaamu yàlla kenn du ko xeeb baaxul ah? kenn du ko xeeb mu mel ni kon bala nga xëccoo am nga liberté tànn walla amuloo ko na nga jëkk xalaat kan la liberté ak kan la tànn yeyoo ci moom waaw ah ndax ku sonnewul boppam jarul mu jaay ñaar yooyu jaru ko mhm. ba tax na mag ñi kenn mënuleen sant lu nu wax rekk yiw la waaw lu nu wax rekk yiw la ndax sunu borom moo leen ci yee mathalu mathalu kalimatin tayiba ka shajaratin tayiba mathalu kalimatin xabiisa ka shajaratin xabiisa la shak mag ñi xam nañu ko dund nañu ko jàngal nañu ko njaboot yi bàyyi nañu ko fi ndax sunu borom dafa wax ci alquran ni baat dana jib jur yiw day yiw dul jeexati mukk nee na baatit dana jib jur musiba musiba mudul jeexati mukk lu mat a la waaw lu mat a bàyyi xel la ndax doomu aadama dafa amul doole ak loo mën a dégg doomu aadama amul doole kon nag bu ko boroom doole ne maa ngi ci sa côté dana dal xel doomu aadama amul doole su ko yàlla ne maa ngi ci sa côté dana dal xel ndax yàlla moom am na doole waaw loolu mooy li am solo jàngal na ko mag ñi xam nañu bal ba ñoo sànni mu joti fa ñu bëgg mag ñi xam nañu bal boo xam ne buñ ko sànnee du mooy mukk fu ñu bëgg inna rabbi yaqdifu bilxaq allaamul xuyub waaw yàlla nee na bombe atomique du loo ko dugal rekk mu yóbbu ko bombe atomique du loo ko dugal rekk mu yóbbu ko dafa am ko xam naka lañ koo defe ba mën ko sànni mu fëx rey nangami téeméeri junniy bakkan nit rekk dina ko def waaw bu ko xamul du sotti waaye bal bi nga xam ni moom lañu ñu tudde dëgg dëgg yàlla ne moom rekk moo ko mën a sànni keneen mënu ko wante dina teral nit nag ba ni ko tollaleel sa mbagg ak sama mbagg tollaleel sa loxo ak sama loxo tollaleel sa tënk ak sama tënk ma sànni dëgg mu àgg fa mu fa ma bëgg ak fa nga bëgg ñu ni yow te fekk mën noonu rek la moo tax ku jara àndal la wa tammat kalimaatu rabbik sidqan wa adla laa mubaddila li kalimaati waaw ma ko mën sama benn mbokk séréer moo ñëw rekk fekk nuy tawat mbiru nawet bi taw bi dafa tardé dafa nangam nangam mu ne ki ngeen di xulal de ku tàmm nawet la waaw ki ngeen di xulal ku tàmm nawet la ba mu ko dalee def yàgg na waaw moo tax xam-xamam fu mu ko jaarale boroom kenn du sañam mooy ndigalam àdduna bu tukki la waaw te kat waxuma dana ko jox nitu diine mais ko joxit nitu politik mayam noonu la deme léeg-léeg nga gis nitu politik bu nga xam ni lu mu la wax yàlla def ko léeg-léeg nga gis nitu diine bu nga xam ni lu mu la wax yàlla def ko léeg nga gis ñoom ñaar ñu bokk jamono àndandoo lu ñu la wax yàlla def ko akbar ah lu mat a bàyyi xel la te dañuy xam nit ndax dañuy jàng bakkanu nit di jàng ruuxu nit di jàng xolu nit di jàng xelu nit am na ñoom lu ne lañuy jàng ci nit moo tax ñu mat a bàyyi xel lañ sama benn baay ca ndar nee na ma cheikh ku baax la ku bëgg diine nee ma dama di ndaw rekk kenn rawuma ma ñibbisi si rekk rek euh, dégg balees Diagne nee bu ma dee def discours fii kenn du àddu parce que kenn du ci génne benn fot nee na ma dëgg ca nag tëxët nee na la ko ba defe ni rekk tubaab piir la waaw dootuma neegal nee na ci yeeli Blaise Diagne yi la jëkk dugg nee na nekk ca nekk ca nekk ca ba sama xol kontaan ni kii daal war na yëg ni la jël naa ko ndeke yëgu ko nee na benn bés rek mu woolu ma dama ñëw ne xale yi Blaise woon na ma ñu ni ma ah, dafa salit dafa salit demal wuyu ko boo ko wuyoo nga wax ko say condition ne ma waaxu rek sama costume ak sama cravate ak sama tubaabe dana ñëw fekk ko ma ngay recevoir lu ma téeméeri nit kenn ku ci ne toll na na sama baay te sama baay ëpp ko daraja nee na kum ci déeyool ñaari seconde bàyyi la woo ka ca des ne mu mel ni lool nag dafa commencé di jeexital ci man nee na ba ñëpp noppee mu ni ma randu si ne ma randu si ne mu siggi xool ma xool ko mu ni ma bëtam dugg ci sama biir bët ne mënatuma ko xool ma sëkk ne mu ni ma bul sëgg siggil ne na ma siggi mu ni ma dégg naa danga naan ma ni ko waay loolu mooy la mu ni ma dégg naa danga naan sangara bu ko defati jógal dem ne ma jéem jéem jóg mënuma ko ne mu téye ci sama loxo ni ma jógal yëkkati ma ma jóg ni ma bu ko defati ndax doomu nit ku yow ne ma it ma génn dem ne xale yaa nga ma xaar ma teggi day jël paas génn dëkk ba mu ni ko loo jàpp ci loolu mu ni ma ndaxam bi ma ko waxee ak état de choc bi ma nekkee mënuma xalaat wante ba ma demee ba am juróom-ñetti fan xalaat naa ni dafa am lu moo nattu ci man dafay seet ndax dama yare di rekk walla dama dof bu fekkee dama yare di dana ko xam ndax kon duma dégg lim ma wax su fekkee dama dof nag mu sàkkal ma pexe ndax dof kenn du ko bàyyi ci pénc muy wax mu ni ma ca laa jóge jël ko muy sama chef politique di sama maître politique mu ni mujj na fu mu jëm mag moo may ànd ndax nit ci wàllu psychologie li ngeen di waxee ilmu nafs dana ca àgg foo xam ni bu waxeeg yow nga xam ni du sa morom waaw sa kilifa la waaw doonte liibar nga ni nee nga liibar nga ci dal ci kawam waaw kenn liibarul ci dal ci kaw kenn waaw mhm. te xam-xam la ki nga ni yow laa faral su la jàngalul jaru ko ki nga ni yow laa faral bu la yarul jaru ko te jikko nag moo gën a mën yar nit waaw jikko moo gën a mën yar nit euh, euh, boo ko seetloo ci biir jamono mel na ni léeg-léeg ñu tudd baat eh bien eh bien eh bien du noonu de waaw tudd baat bi rekk defe ni may na la lu ne sañ nga lu ne buñ la waxee rek nga ni eh bien eh révolte du defar àdduna mukk waaw yaakaar rekk mooy defar àdduna waaye xol bu tàng jër du defar àdduna mukk waaw yaakaar rek mooy defar àdduna waaye xol bu tàng jër du defar àdduna yaakaar rek mooy defar àdduna eh bien tubaab nee na liberté liberté liberté ana liberté ana liberté balaa dikk nga xaw a dee liberté balaa dikk nga xaw a dee waaw boo xawee dee ba mu dikkit ni la xamal nooy jëfandikoo ni la nag xamal nooy jëfandikoo kilifa yépp looloo leen fi bàyyi woon ñi daan def politik ñi daan def diine ñi daan def aada ñépp gindi nit ñi moo leen fi bàyyi woon ndax liberté kese kese boo ŋàbb noonu rekk kenn ku ne nga fénq ko yet waaw sama mag ja ca Tiwaawan Ngoy nee na dañu nekk quartier ñëpp nekk caporal ma nekkuma ko ne mu metti ma wallaay sama xol tàng jër ne ma waxtaan ak chef bi mu xam ni nag jàmmu yàlla laa te ku gëm laa diine mu ni ma muñal rek bu ko yàlla bindee dana ñëw ne ba ñu xëy rekk woo ma ne def ma nee ma rangale soldaar su ndaw sépp mecc leen mecc waaw ñoom it ju sato ma ne bi chef bi ñëwee eh, ma ni ko dañ ma sato mu ni jarul wax ndax sa kanam gi ku ko gis xam ne dañ la sato waaw mu ni ko wante euh, rekkit àdduna du noonu ne ma ni ko xam naa ko wallaay mu jeex tàkk ah? waaye duñ la dugal ci école yi sa way jur yëpp def lu ne ba nga génn am sa diplôme baat boo jël rekk defe ni noonu la taxaw ci mbedd saaga ñëpp doxul de waaw doxul